bu fekkee da ngay peese ab baat nga xasaf ci dara bu dee commencement bi nga xasaf faa gi xasaf ko bu dee digg ba nga xasaf xasafal ayn gi bu dee laam gi mujj gi nga xasaf xasafal laam gi fa taqul nga wax fi wazni qul xam nga xawala la xoon kon gi mooy faa gi gi mooy ayn bi laam gi mooy laam bi qul luñ ko peesee neel masalan ful ful ngay wax nga dagg ayin ba <clears throat> ndax bi dañoo dagg ayin ba kon ci fees bi dañoo dagg ayin ba wa fi wasni qaadin xam nga qaadi yun la woon kooku faailun lañ ko teg peese bi faain ngay wax nga dagg laam ga nga ne lañ ko tëgg wa fi wasni iddatin dangaa dagg waaw ga nga ne xillatun lañ ko lañ ko tëgg parce que xillatun taa gi ndollal la te taa da nga koy mën a arfu ndollal da nga koy andi nañ ko yokkee kon xillatun xillatun lañ ko tëgg hmm. maanaam su fekkee da ngaa xasaf rek ca fenlu bi dara da ngay xasaf la tollaw moom ci faala iddatun waada la hoon nga asaf waaw ga masdar bi nekk iddatun taagi ndolla la kon liñ ko tëgg naan illatun wayn xasala ne am na qalbun jàllar bi fil mawzuni ci la ñuy peese xasala am na aydan ba tey fil misaani ca balaas ba arab dafay def lu ñu tuddee qalb maanaam ayn gi nga war a njëkk nekk ca commencement ba ci misaal commencement ba nekk ci digg ba boo koy peese yi noonu nga koy andee ayn bi moom ngay njëkk tudd faa gi nekk ci digg ba fa yuqaal dinañ wax masalan ci misaal fi wazni jaa jaahin ci peese jaahin ji firi daraja ñu ne luñ ko peese nga ne afalun lañ ko peese بتقديم العين نجيت الدقبع الفاي تكم اسمع جاهن عين دمجيتو فاقا دين نافاز توتي دين dégg nga jaahin kooku xafalun lañ ko tëgg bi taqdimil ayn yi nga jiital ayn gi alal faay ca faaga waxoo faalun lañ ko tëgg dang ne xafalun lañ ko tëgg ñu déggee ci ne kon ndekee alif googu moo doon bi jiim gi mooy digg bi xaar moom mooy mujj ka alif gi nag waaw la xoon ñu soppi ko alif jaahin wajhu la jóge wajhun léegi ñu jël jiim bi def ko ci commencement bu baat bi waaw gi nga xam ne moo nekkoon ci commencement bi ñu def ko ci digg bi bu ko defee soppi ko alif loolu moo andi jaahun waaye wajhun moo doon cosaan booy way kon liñ ko tëgg woone jaahun jawahun la war a doon dañ koo tëgg afalun ndax alif gii nekkul ci digg bi la war nekk ci commencement la war a nekk te waaw la xoon jiim gi nag moo war a nekk ci digg bi su baat bi lañ naan afalun lañ ko tëj wooyu arafu danañ xam al qalbu jaazar bi bi umurin xamsatin si juróomi mbir ndax baat bi am na qalbu wala amul qalbu juróomi mbir moo ñu ko jàngal alaawal bu njëkk mooy istiqaaq maanaam ñu xotti dégg il faut ñu taxaw defee jaaxum ci lañ nekkoon ñu ne lañ ko tëgg lu tax ñu dégg ko xafaloon ndax alif googu mooy commencement wu baat bi jiim digg baat dañoo jël commencement bi nag waaw woon wëj xun la woon wëj lañ jël waaw gi ñu def digg ba maas jim gi fata xam nga wax nañ ne xarafu ràgg bu maasee la ko jiitu fat xarafu ràgg bu sukkoone la ko jiitu maas dañ koy dañ koy soppi alif léegi nag buñ jëlee waaw gi def ko ci digg ba moom day am sukkoon ni ni jim gi amee woon sukkoon ñu jël gi jox ko place waaw gi jaw xun lay doon soo demee xarafu ràgg woo ñu changé ko alif loolu andi jaaxul suñ ne la luñ ko pe luñ ko tëgg bul wax faalun neel afalun ndax ayn bi moo nekk ci commencement bi léegi commencement bi moo nekk ci digg nan lañu ñuy xamee xalbu nag mooy dañ ko xamee ci juróomi mbir xalbu bu amee ci langue arabe juróom mbir juróomi yoon mën nañ see jaar xam ko alawal bu njëkk al istiqaaq xotteeku baat bi maanaam xool moroomi baat bi baat bu nekk day am mustaq maanaam dañ koy xottee ci ay yu bëri léegi-léegi nag nga gis lu la woon cosaanu baat bi ka naa a comme naa a bil maddi ci xëcc dangaa gis ne naa a sori na masdar bi loo gis ñu wax na yen a nga xam ne kon gis nga ci masdar ba xam nga masdar mooy cosaan masdar bi dangaa gis ne nun moo jiitu alif topp am zëgi topp si yaa ñëw te yaakat moom lañ laan soppi alif ci fi'lu ba nag yow nun nga gis ak ya ak amza ya gi dañ ko soppelif alif ne kon fi dafa am qalbu na yu lañ jël jël ya ga tek ko place amza ga jël amza ga tek ko place ya lu loolu ko xamal na yu gi mo ko xamal da nga gis fi na a masdar bi nekk na yu na yu googu dalilun tegtalala an na naa ne naa al mamduudu biñ def madd maanaam man mamduud mooy bu am sa ci muj ga maqlubu na a luñ jàllar bi na a la na a moo doon cosaan li ñu jàllar bi ko def na a maanaam amza gi moo ci digg gi yaa gi nekk ci mujj ga comme nu ñëwee ci masdar bi ndax mooy cosaan na yu fexlu bi na a la waroon doon mais dañ koo jàllar bi jël yaa gi def ko ci digg bi jël amza gi def ko ci muj gi loolu moo andi naa a li la ko xamal istiqaaq ba nga xoolee ci masdar ba li nga xam ni fa lañ xottee fenl bi moo la xamal ne fenl bi dañ ko jàllat fa yuqaal ñu wax naa kon naa buñ la waxoon pees bi lan la da la faala dangay xool naa xare ba ci digg ba moo nekk ci mujk kon kon ayin gi moo nekk ci palaasu laam ka laam gi nekk ci palaasu ayin bi kon pees bi dañ naan falaala faagi moom mu ngi ci palaasam nun gi keneen jàllale na ko waaye hamza gi nga xam ne ni moom nga gis ci digg ba dégg nga moom gis ca alif gi nga gis ci digg ba pourtant yàlla ca mujj la war a nekk kon laam gi moo nekk ci digg ba nga ne fala ayn bi waroon nekk ci digg ba moo nekk ca mujj ka kon foofu ayn lay tolloo moo tax fala lañ ko tëgg Hmm? su ko defee su ko defee naa a ah, falaa ah, lañ ko tëgg hmm? te dégg nga su ko defee naa kooku maqton la maanaam maqlub la moom naa falaa lañ ko teg falaa ndax araf ba gis ca digg ba muy alif gi moo war a nekk ca mujj yaala guñ soppi alif xaraf ba nekk ci muj ga moo waroon nekk ci digg ba te boo koy peese tamit noonu ngay def da ngay jël ayin gi waroon nekk gi nekk ci digg bi def ko ci mujj ga laam gi waroon nekk ci mujj nga def ko ci digg ba muy falaa ngay wax loolu noonu lañ ko tëgg loolu ko xamal mooy na yu na yu am za nga gis yaa door a ñëw nga xool fenlu bi muy naa a masdaram di na yu nga ne ah fi'l ak masdar bokk nuñ toppalante araf mais xooloon naa ah nga ne naa noonu nga gis ak alif te alif yaa lañ naan soppi alif ak amza masdar bi nga gis nuun ak amza ak yaa nga xam ne kon lay masdar la nekk ci masdar ba muy dëgg maanaam amza gi moo jiitu yaa gi a ñëw dañ ko ref xal bu ca fi'l ba jiital yaa mujj amza gi kon nuñ koy peese fala da ngay ci fa nga indi faa gi mu toll ak noonu gi maanaam la waroon a nekk laam nga nga def ko ci digg ba fala la waroon nekk ci digg muy ayn def ko ci mujj ga muy fala nga ne naa fala lañ ko teg kon maqlubu naa la noonu la ñuy xamee xalbu istiqaaq danañ ci xamee xalbu wa kama fii jaahin jaahun day firi daraja waaye dañ cee def xalb maanaam alif googu nga des nga gis ci digg ba ca commencement bi la war a nekk mooy faawu baat bi jiim gi nag moom ci digg bi la war a nekk xaa gi ci mujj gi la war a nekk léegi nag jiim gi war a nekk ci digg bi moom lañ def ci commencement bi waaw gi war a nekk ci commencement bi ñu def ko ci digg ba loolu dafa am ci waxi arab xaa gi moom ñu bàyyi ko place am lan moo ñu xamal ne jaaxu dañ ci def xalbu mooy ñu gis wajhun gi firi daraja wujhatun di firi daraja te yëpp di nga gis ne waaw gi moo nekk ca commencement ba ñu ne waaw kay ndekki alifu jaaxa de waaw la te waaw googu ca commencement ba la nekkoon ñu def ko ci digg ba wajhun ak wujhatun moo ñu ko xamal wajhun ak wujhatun dalilun loolu tegtal laala an jaahun ne jaa maqlubu wajhun wajhu guñ jàllal bi la def ko jawhun ba pare changé alif gi changé waa googu muy alif loolu moo andi jaaxun daraja wajhun moo ñu xamal ne ndeke jaaxun alif googu waaw la te waaw gi ndeke ci commencement bi la nekkoon kon istiqaaq xool moromi baat boobu baat boobu la bokk ak firi boo ko xoolee ci ngay mën a xam am na istiqaaq wala amut istiqaaq hmm. wajhun ak jaaxun benn maanaa la were firi daraja rek ñu ne waaw ñaari baat yi de boo xoolee ñoo bokki xaraf waaye li ñuy jaaxal jaaxul ci digg ba alif la wajhun ci commencement ba am waaw ñu ne waaw kay ndek waaw gi nekkoon ci commencement bi moom lañ yóbbu ci digg ba soppi ko alif loolu moo andi jaar boo xoolee rek da ngay xam ne noonu la maa demee parce que ñoo bokk xaraf bokk maana fa yuqaal ñu ne jaaxun ala wazni afal la kon nuñ ko peese afalun ndax ayin bi nekk ci digg moom lañ def ci commencement bi faa gi nekkoon ci commencement bi ñu def ko ci digg ba laam gi ñu bokk ko palaasam booy peese bi naan afal la kon bu xal bu amee bu jàllal bi amee ci baat bi jàllal bi dafay am ci peese bi maanaam ci baatu faala yi jox na ñaari baat jox na ñaari misaal ci yu am jàllal bi naa a ak jaahun ñetteel bi mooy wakama fi qisiyin xisiyin dafa am xalbu xawsu la mooy mooy mooy xala rek xala moom la gaa yi euh, bant xalamkat yi di xalame fa inna wuruda xawsun naka rota xaws dalilun tegtal lala annahu ne moom maqlubu quwusun la woon xam nga fonolun lañ ko tëgg xisiyun fool lañ ko tëgg waaye mu nekk xisiyun fa quddiman ñu jiital allaamu muj ga mooy siin googu moom lañ jiital fii mawdin ay ni ca barabu digg ba mooy waaw ga fa waaw ga nekkoon xawsun xam nga boo ko tëggee fonwulun dafay nekk xuusun waaw googu waaw a ñaare gi ne moom ndollal la wasnu fonwulun gi ne moo ko kaw sun boo ko tëggee fo faalun foolun dafay nekk xuusun ñoom nag dañoo def xalbu jël siin nga def ko ca waaw ga waaw gi nag ñu def ko ca place siin ga mu nekk xusuwun xal boo ngóob moo tax fa qudima dañoo jiite allaamu laam gi fi moo deen ay ni ci barabu digg ba mm. fasaara mu ne nekk xusuwun xusubu nuñ ko peese mu ne ala was ni foloon peese bi foloon ngay wax xam nga xaaf gi moo tolloog faa waaye siin gi laam nga la tolloog tolloog rek ayin gi waaw gi moo tolloog ayin gi ben waaw gu nga si dig nga gis noon kooku ndollal la kon naan foloon lañ ko tëgg ni nga xalboo ci baat bi noonu nga xal boo ci wasna bi nga ne lan moo andi nag waxuñ xusuwun ñu wax xisiyin léegi ñu ne fa xule ba dañoo changé al waawu saaniye waawu ñaareel gi yaa an muy yaa li wuqiyaa ngir nekk gëm te nekk tarafan ci cet waaw bu nekkee ci cet dañ koy changé def ko ya te boo ko defee yaa faw nga changé waaw gu njëkk def ko yaa ndax ñaa waaw ak yaa mënuñoo daje wala waawu uula waaw gu njëkk yi changé ko def ko yaa li ci maa ngi daje kim ya maa yaa ànd ak yaa wa sabqi ihdaahuma ak jiitu benn si ñoom ñaar bi si sukkoon wa kusiran ñu kasal ak siinu sin gi li munasabati yaa ngir mu dëppoog yaaga loolu moo andi xisiyun xam nga xisiyun jamu la waaye mufrad bi moo ñu xamal ne dafa am xalbu mufrad bi mooy lan mooy xawsu benn xala nga gis xisiyun jamo bi siin gi moo jiitu ca mufrad nga gis waaw moo jiitu ah loolu mënu nekk ci langue arab kon xalbu am na si changé sa xel war naa dem ci ne nekk xalbu am na ndax fii xawsu nga wax waaw gi moo jiitu sin bi ci jàmmoo bi nga ne xisiyun waaw de moom lañ daan soppiyaa waaye siin kenn du ko soppiyaa nga gis sin gi jiitu waaw gi fii nga ne am na lu xew ci baat te boo xalaatee doo gis lu may nekk xal bu dafa am maanaam la laam gi moom lañ def ayin bi la doon ayin bi ñu def ko laam nga nga ne kon xal bu am na sin bi teg nañ ko place waaw gi waaw ko place wala sin ba ñu ne noo def ba am xisiyun nga ne maanaam xawsu nga def jamu teg ko fuulun mu nekk xuwuusun fuulun xuwuusun nga ko tëgg nga gi nag teg ko si place waaw gi waaw yi nga teg ko si place sin gi dafay nekk xusuun xusuun ñu ne waaw bu nekk ci mucc dañ koy changé def ko yaa bañ ko changé mu yaa mu nekk yun ñu ne waaw yaa fuñ dajee benn sukkoon waaw gi moom lu fu mu mën a nekk dañ koy soppi yaa nga soppi waaw googu noonu yaa mu nekk xusuy xusuy yun ñu ne déedéet dàmm du jiitu yaa su ko defee ñu kasra siin gi pour mu dëppoog yaa ngi loolu moo andi xisiyun ñaari yaa dajee njël benn bi sadagu si benn mu nekk xisiyun xisiyun mooy jamu xaws boo xoolee nag boo boo boo mënagut sarf bu baax xamoo xamoo xalbu maanaam xamoo nu jamu yi maanaam ni ñuy soppee baar yi ni ñuy daggee ni ñuy changé waaw def ko yaa mën na laa jaaxal xis yun fu mu jugee waaye fonwulun rek lañ ko tëgg xis yun fonwulun rek lañ ko tëgg wala boog foloon lañ ko tëgg ci cosaan fuulun lañ ko teg mais soppi gi gi yaa moo dem ak moo indi soppi masque yi nga dem ba am ba am filiun filiun nga mujj am fisiyun ni wazni filiun la filiun xarafu njëkk bi dañ ko soppiwaale tamit kasara ko ndax bañ nga jugee ci daamu dem ci kasara xam nga jugee ci kasara dem ci kasara moo gën jugee ci daamu dem ci kasara dañu bañ nga wax fuli un maanaam xuuf si yun mm. kasara xaaf bu mu nekk xisi yun kon xisi yun fii lii on lañ ko tëgg faa gi mooy tolloo xaaf gi mm. dangaa kasara xaaf gi kasaraal faa gi mm. siin gi nga ne moo doon mujj ga kat parce que xawsun moo ñu ko xamal taxu de moo ko xamal xawsu gi nga xam ne mooy mufrad ma siin gi moo mujj kon ñu ne laam ga moo nekk ci digg bi laam gu luñ ko dañ koo kasara nga ne fii li xisi yaa googu ñu ne waaw la xoon ku wuusul lañ ko tegoon waaw googu moom lañ soppi yaa nga ne kon fii lii bu ko beneen yaa gi ñu de mooy waaw xawsu gi nekkoon ci diggoo moom lañ def ci mujj ga léegi kon léegi jëlal aynu faala nga def ko ci mujj nga ne fii lii moom lañ ko tëgg kon xisi yun fii lii un mooy wasnu bi actuellement filiun mooy wasnu yaa ngi may déggam wal xaafu xaaf gi kasara nañ ku leon si intiqaali ngir jëfek toxlu min dammen jógee si damm ilaa kës na jëm ci kasara maanaam joxe na ñetti exemple ci xalbu naa ah mu ne am na ci luy xalbu bi ayn bi moom lañ def laam ga laam ga ñu def ko ayn bi lu ko xamal na yu moo ñu ko xamal naa ah ak na yu na yu yoo gis am sagi moo jiitu yaa ñëw te yaa lañ laan sopp alif naa ah nag ñi gis yaa gi moo ñëw yaa gi sopp alif am sagi door a ñëw ñu ne lay masdar moom mooy dëgg masdar bi moom mooy cosaan kon ñu kon foofu xal am na fi naa ah du cosaan na a moo doon cosaan na a ñu soppi ko def ko def kon naa ah, su ko defe boo koy peese nun gi moom jox ko faaga mu tolloog moom waaye alif googu jox ko laam parce que laam la woon am sa gi ca ga bu ko jox laam de jox ko ayin parce que ayin la woon nga ne falaa lañ ko teg benn was nangu ah, ngeen jàng gu mu mokk ci ñëwee ngeen wax man naa nuñ ko tëgg ak ñu def ba tëgg ko après ñu door a continuer mu andil ñi jaaxun ñu ne jaaxun de gis nañ ko muy firi daraja ñu tamit ñuy wax wajhun daraja ñu gis ñuy wax wujhatun daraja arab si changé rek si xel de dem ne jaaxun ak wajhun ñoo bokk maanaam bokk ay xaraf waaye li ñuy jaaxal fii jiim gi moo jiitu fële waaw ga bañ gisee wajhun ak wujhatun muy ñaari anam yoo xam ne waaw jiitu loolu daf ñuy xamal ne nekk kon jaaxun dañ ci def xalbu nekk waa gi moo mooy faagi ñu def ko ci digg ba jiim googu nekk ayin la ñu def ko ci commencement xaagi xaa moom ñu bokk place ñu ne kon baat bi afalun lañ ko tëgg nga gis xisiyun mm. ne nañ dem ci mufrad moom muy xawsun ah mufrad ak jamoo luñ ci xam mooy tëggin yi lañuy changé rek masque yi waaye changé xaraf yi bii jiitu bee bee ñëw ci gannaaw mënul nekk tey boo waxoon dar sun duru sun li mën a kaw daal daal gi moo jiit raa gi sin gi mujj ñëw xaw sun nag nga ne xisi yun mufrad moo waaw ba jiitu sin ba mujj jamoo bi sin bi njëkk ñu ne loolu xalbu la kon ndeke ci jamoo bi lañ def xalbu ndax mufrad moom mooy cosaan lay mufrad bi moo wér su ko defee ñu ne kon ndeke xawsun lañ ja lañ def xalbu ca jamoo ba lañ ko defee xalbu paa ci mufrad moo kon bañ koy def jamoo lañ ko tëgg xusuu fuulun mu nekk xusuwun siin bi ñu def ko ci place ayin waaw bi ñu def ko ca mujj ka muy xusuwun ñu ne waaw nekk ca mujj ñu changé ko def ko yaa muy xusuuyun ñu ne waaw ak yaa buñ dajee ba jiitu sukkoon waaw bi fu mu mën a nekk dañ koy sens def ko yaa mu nekk xusuy yun ñu ne dàmm jiitu yaa jaaduwul ñu kasara siin gi muy xisi muy xusi yun ñu ne jugee ci dàmm dem ci kasara dafa dis kon nañ kasara xaaf ga ñu kasara ko muy xisi yun ñaari yaa wi dajee njël benn bi sëdd si benn muy xisi yun ñu ne ànd ak lii mooy jamono bi te si yun mooy jamo bi léegi ni luñ ko tëgg neel filiun parce que siin gi laam la waaw gu yaagu mujj googu waaw la ayin la yaa gi moom yaa la fi mu nekk ni waaye nag moom doolal la te naan filiun lañ ko tëgg bu na ko fuluun lañ ko tëgg waaye xisiyun moom filiun lañ ko tëgg lim bëgg a jàngale fii rek nga bëgg nga xam ko parce que ni ngay def ba changé baat yee xal bu beeg yooyu ak axkaam yi euh, xawaay tamit loolu dinañ ko jàng ci biir téere bi loolu taxu koo jug nan la ñuy changé xawaay yi kooku taxu koo jug fii mu nekk nii li ko tax a jug rek mooy booy peese bu fekkee da ngaa def xal bu ci baat bi ngay peese baatu faala da nga fa def xal bu moom it loolu rek la bëgg nga xam wa kama fi xaal xam nga xaadi asra dañ koy dégg fukk ak benn mais li gën a siiw ñu gën ko miin mooy waaxid xaadin ak waaxidun ah ñu ne ñaar yëpp dañoo bokk benn maanaa ah te lañ gën a miin mooy waaw ga jiitu parce que am na cosaan am na waxdatu waaxidun kon ñu ne nekk moo jiitu waaw googu lañ def ci digg ba wa kama fi xaadi comme xaadi ay ren ba na wuruda waxda naka rot ak waxda dalilun tegtal ala andoona moom maqlubu waaxidun la waaxidun guñ jàllal bira waaxidun waaw gi moo nekk ci ci sànde su ko defee waaw googu nekk ci ci sànde moom lañ def ci mujj def ko yaa parce que kasaraa waaye xaadi wun moo doon cosaan foofu waaxidun dañ koo xalbu jël waaw gi def ko ci muj ga jël xaa gi def ko ci commencement ba alif gi nga xam ni alifu faayilun rek loon ñoo ko gannaaw kuma gannaaw xaa loolu moo andi xaadi wun ah ñu ne kasra jiitu waaw ñu saasi waaw gi yaa muy xaadi kon waxdatu nga xam ne moom cosaan la moo ñu xamal ne ndeke xaadi yi waaxid la woon gis nañ waaxid gis waxdatu muy firi kenn ñu gis xaadi yi muy firi benn ñu ne nañ xoolaat ndax waaxid ak xaadi yi ñoo bokk benn maana waaye fii dañoo gis ne waaw moo jiitu fële ñu gis ne xaa moo jiitu fii ñu gis ne amul yaa fee ñu gis ne am na yaa ñu ne ndekkee waaw gii nga gisoon ci commencement bi moo lañ def ci mujj ga moom lañ changé yaa ndax kasaraa ko jiitu su ko defee nag xaa gii nga gis ci commencement bi kan ndekkee ayin la tombek kon waaw gi mooy tombek laam xaa gi mooy tolloog mooy tombek ayin alif gi moom alifu xëccaa rek la daal gi nag moom dégg nga moom mooy tolloog euh, maa ngi kii maa ngi waaw gi laa wax yaa gi faa gi mooy tolloog faa faa waa ayin fa faala waa gi mooy tolloog faa gi xaa gi mooy gi daal gi mooy tolloog laam gi haadi kon fo wasnu haadi aalifun la buñ la waxee haadi luñ ko tëgg du wax faayilun de ndax lii nekkatul faayilu ndax dafa am xalbu moo tax ci cosaan li kon bi day am xalbu neel aalifun lañ ko tëgg fon nuñ ko déggee aarifun ñu ne xaa gi ayn lay tomboog aynu faala alif gi xëccaan la day ñëw comme noonu ñu ne daal gi mooy tolloog laamu faala waaye ñu gi nga gis kat ndeke waawu waaxid la hoon kon mooy tolloog faawu faala ñu ne kon wasnu bi aalifun la kon jàng nañ ñetti exemple ci xalb lii xalbul darsu bi nag maanaam liy xolu darsu bi liñ soxla ci darsu bi du dégg nga mm, nga xam fan lañ maanaam ne baat yi dëgg la waaw man nga xam ne baat yi dañ ko def xalbu eh, mais liñ soxla rek mooy baat bi ngay peese buñ ko defee xalbu jiital lu njëkkoon mujjee lu mm, njëkk jiital lu mujj won wala nga mujjee lu njëkk loolu ci ci ci ci ci wasnu bi da ngay def xal ñu jox ji ñent exemple yaakaar jaahun ak ban yaakaar naa nañ jaahun ak qisiyun ak hadi ak desna ben benn hmm nga nañ jaahun ak naa naa jaaxun xisiyun xaajun yooyu yëpp am na xalbu ca cosaan la moo tax seen seen wasnu dafa am xalbu ci xarafi faala yi su ko defee li ñu xamal ne am na xalbu nag mooy istiqaaq jaaxun dañoo gis wajhun wujhatun ñaar yu tekki daraja yëpp waaw gi jiitu ñu xam ne alif gi ci jaaxun waaw gi nekkoon ci commencement bi نا نا ان مو نكو خمال نا يو مصدر بم مو نكو خمال نكو أنيف جي مو جيتو ياكي تي نا نا لهم قسي قوس مانا مفرن مو نكو خمال بس مفرن واغو مو جيتو تو مفرن مو جيتو سان نيو خمنا كون سين دي نكو واغو مو جيتو فهم قلب سو كده في حادي اك واحد بن لا واي بن واحد نيو غيس وحدتو مي waxada wéetal na waxada wéetal na yu waxidu même fexlu bi mustaqaaf nam yëpp day gis waaw gi mooy jiitu ñu ne kon ndeke haadi dafa am xalbu ci langue arab maanaam ndeke waaw def ci mujj ga moo tolloog yaa googu ko soppi yaa ndax kasaraa ko jiitu su ko defee xaa gi nekkoon ca digg ba moo nekk ci commencement bi alif gi ñëw daal bi nekkoon ci mujj ga moom place am rek lañ euh, lañu ba léegi maanaam ba léegi lam ga waaye nag dañ ko ci digg bi fi nekk nii léegi nag boo koy pees da nga naan xaa gi tolloog ayin gi moo nekk ci commencement bi léegi kon ayin bi laa ci commencement bi ci baata fan la nga indi ayin gi ci commencement bi alif gi nga indi ko mu topp ayin gi nga ne ah lañ ko tëgg daal gi moo tolloo nag faala waaxidun failun daal gi moo tolloog laam gi su ko defee nga indi laam foofu gannaaw ah nga ne aali waaw gi gi yaa gi nii moo tolloo nag faaga ndax waaxidun faayidun la kon waaw gi moo faaga nga indi faa gi ca mujj ga comme niñ indee waaw gi ca mujj ga noonu nga indee faa gi ca mujj ga niñ jëlee ayin bi def ko ci commencement ba nu nga jëlee ayinu faara def ko ci commencement ba niñ jëlee laamu faara def ko ci faayidun gi def ko ci digg ba mm-hmm. mu nekk xaadi yoon noonu nga jële laamu faayilun gi def ko ci digg ba nga ne xaalifu ni ko teg loolu moo ñu xamal ne istiqaaq am na foofu kon istiqaaq ci la ñuy xamee xalbu asaani ñaareelu anam gi ñu xamal xalbu mooy at tasxiwu ñu wéral ko maa wujudi mujibil inlaali ànd ak am ak lu koy war a ràggal baat bi gis nañ ne dañ ko war a ràggal te ràggaluñ ko li tax ñuy ràggal baat nag dañ ko jàng maanaam ràggal baat comme xawala waagi dañ ko sens def ko alif loolu mooy inlaal ñu ne xaala boo fa bàyyoon waaw ga nag kon defoo ko inlaal ràggaloo ko waaye ràggal mooy xarafu waaw wala yaag nga sens def ko alif suñ gisee ne fii ci xaayida arab dañ ko waroon a ràggal te ràggaluñ ko ñu wéral ko ñu xam ne kon ndeke du ci saan xalbu daf ci am kon xalbu istixaar danañu ko jàngal waaye wéral lu ñu waroon ràggal danañu ko jàngal kama fi aysa comme aysa gi firi naagu na foofu sax dëgg la wéral gi xam la ne lii qalbu la waaye tamit istiqaaq gis nañ ya isa muy firi naagu na ñoom ñaar ñu bokk même firi ñu xam ne aysa ndeke ya isa la xoon ya isa gi firi naagu na mooy cosaan masdar mi nekk yësu gis nga masdar mi yaa ngi moo jiitu am sa gi door a ñëw même yaisa yaa ngi moo jiitu am sa loolu daf ñuy xamal ne kon aysa yaisa la xool moo jiitu am sa gi door a ñëw ñu changé nag am sa ci digg bi ñu def ko ci commencement ba jox ko maskam yaa ngi nekkoon ci commencement ñu def ko ci digg ba jox ko maskam loolu moo andi ayisa waaye leneen xamal nañu ne baat bi dañ maanaam dafa am xalb mooy yaa wala waaw bu maasee la ko jiitu maas hmm? dañuy soppi waa gi wala gi alif xawifa xam nga dafa kasara wala xayiba moo gën a niroog bii weegu na wala ragal na dafa kasara moom yaagi la nga jiitu fata léegi ñu ne kon yaagi dañ ko war a changé alif loolu xaayida la ñu wax lu tax ayisa waxuñ aasa ñu ne ayisa te pourtant moom dafa maas la nga jiitu fata kon dañ ko waroon a kasara yaa wala maa waaw bu maas la nga jiitu fata dañoo war a changé yaagi wala waaw gi alif gis nañ même xaayida boobu fii ta changé wuñ ñu xam ne kon ndeke yaa ngi nekku ci digg fi mm. yaa ngi ci commencement bi la nekkoon moo tax changé ko mm. daf ñuy daf ñu jàngal ne que ya isa moo doon ci sant mm. foo gis xarafu ragg bu ñu waroon a raggal soppi ko alif soppi wuñ ko rek xamal ne moo jiitu la ko jiitu ci gannaawam la ñëw ayisa moog amuñ benn différence xayiba dañoo changé yaa ngi def ko alif ndax la ko jiitu dafa fataa moom mu rag tamaas ñu ne haaba ay sa tamit noonu la la ko jiitu dafa fataa moom mu rag tamaas aasa la ñu waroon wax ba ñu waxutee aasa loolu moo lay jàngal ne kon ndeke yaagi moo jiitu alif gi alif gi moo ñëw gannaaw yaagi yaay sa moo doon cosaan ñaareel xal boo dañ lay jox masque ba nga ya isa bañ xal boo jël alif bi def ko ci commencement ba dañ ko jox fataam yaa gi bu ñëwee ci digg bi dafa jël kasaraak alif gi mu nekk ayisa fayna tasi woo nako wéral gi nga ko wéral maa wujudil muuji bi ànd ak am lu waral ñoo ràggal ko woo moom taxarukul yaay mooy maas ak yaa gi wala fitaaw maa xablaa la ko jiitu fataa woo yaa bu la ko jiitu fataa lañ ko war a changé def ko alif te changé wuñ ko loolu dalilun tegta laalaa andoona moom maqlubu ya isa ya isa guñ jàllal bi la fa ayisa kon peese bi lan la danaa ala was ne afila ngay wax dañ ko peese parce que ayin dañ def ci commencement ba faa gi def ko ci digg ba laam gi ci fu mu nekk lañ ko ba booy pees tamit jëlal faa la nga def ayin gi ci commencement ba mas ko mas ak alif faa gi nga def ko ci digg ba mas ko nuñ kasara yaa gi nga ne afila lañ ko peese kon dañ bëgg a xam rek mooy buñ changé ca baat ba def ci xalbu su defee ca wasnu bi lañ ci def qalb qalbu dañ ko xamee ci istiqaaq dañ ko xamee ci wéral lu ñu waroon a ràggal ràggal moo ñu change ko def ko alif te defuñ ko loolu boo yoon danañ xamal qalbu qalbu naa fi aydan ba tey bi asli ci cosaan li woo moom al asu buñ xoolee ci cosaan li mooy masdar ma istiqaaq bi danañ ci xam ne dégg nga qalbu bi fii am na ndax yaasu dañoo gis ne yaagi gi moo jiitu alif gi di ñëw sin gi doon ñëw ay sa naagu na masdar mi nekk yasan ak naagu ñene déen masdar ak fenlu ñooy bokk nuñ toppalante seen araf te masdar yaa moo jiitu am sa ñëw sin ñëw fenlu bi am sa moo jiitu yaa ñëw sin ñëw ñu ne kon fenlu bi leen def xalb parce que masdar mooy cosaan su ko defee ñu ne kon ndekee ay sa ndekee yaa isa la xoon buñ xal baat nag teg ko place place lam jël dafay jëlaale maskan bi ya isa nga jël alif gi teg ko foofu nga jox ko maska yaagoo yaa gi nga teg ko si digg bi danga ko jox maska alif gi ci cosaan mu nekk ayisa kon ayisa ñaar ñaar mooy xamal ne xalbu la mooy euh, ràggaluñ yaa gi maanaam changé wuñ ko alif te dañ ko waroon changé alif cosaanam it xamal nañu ne xalbu la ndax cosaan li ya su la moo jiit am zëgi door ñëw te fii te am zëgi moo ñëw yaa su ko defee loolu moom mooy darsu euh, tay bi beneen yoon danañ mottali rek ci li waral ñu jàpp ne xal bu am na ñaar lañ ci jàngale wéral lu ñu ragal ak istiqaaq ñaar yooyu moo ñu xamal ne xal am na am na yeneen nit li wane xal bu am na ci waaye saa yuñ xal boo ci baat bi rek peese bi dañ cee def قلب لول رك موي تك تك داس بي ساي قلب بات وزن بي لنجي ديف قلب ان الاسلام استنط ما توفيق بالله توكلت عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته